هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله ci dundu président de la république maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Ahmad Tidiane Niass xalifa Cheikh al Islam di ci teg mboolem njabootu Cheikh al Islam ak muqaddam yi ak taalibe yi ñu ngi nuyu tamit mbooleem kilifa yi diine ak kilifa yi aada di teew fii ci jataay bi ak yi ñuy déglu sëriñ bi maa ngi leen di ndokkeel man ak délégation bi ma ànd ak ne kenn ku ci waroon a ne fexe nga ba teew yéen ci bi nga ni moom la ñu président yónni fii ci Madina bés bii dafay bés bàyyi ko bu ñëw fii bés bi muy bés bi nga xam ne ci la gën gi mbindee gën a jamono alquran wax wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dama laa yónni nga nekk yërmande ñeel ñu def yëpp kon ci mbindeef yi bés bi bés gënu koo mag muy bés bi nga xam ne ci la yàlla leerale àdduna ndax ci la ñu joxe lépp lu ñuy jëriñ ci yàlla bés la boo xam ne nii képp ku ko màggal suñu borom dana la jéggal say bàkkaar suñu borom dana la dugal àjjana bés bi ñu tuddee ko gàmmu ci suñu réew xew-xew bu mag la ci islam bu rëy la waaye dafay bés boo xam ne mooy seet sax mel na ni yàlla moo njëkk gàmmu bu ñu demee ci suratu naj mi da nga ko fekk yàlla ni koy tagg yonent yàlla alayhi salaatu wasalaam tagg aw làmmiñam tagg ab xolam tagg ay bëtam ci la yàlla wax ne wa ma yantiqu anil awaa lu mu wax di jublu te yàlla ñu yàlla fayal maam Abdoulaye ibn Mohamed Niass mi nga xam ne ko boole ci mag ñu baax yàlla wërsëgal ñu yàlla wërsëgal ko mu demoon ziyaare yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba aj métier njabootam maam Khalifa Niass mu baax ma ak El Hadj Ibrahima ñu gën koo xam ci Baye Niass yàlla moo ñu leen wërsëgale Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass gën koo xam ci bàyyi loolu rek doy na war ma ndax pour ko tuddee boo ne bàyyi ñëpp na ma kon bàyyi la ci diine bàyyi ñaar mi ngi gane jamono atum 1900 ci weeru rajab ginnaaw waxtu takkusaan rajab mooy weeru alxuraan ci la julli juróom loolu mi ngi ci téeréem Kaashiful Abaas ca gudd ba rek Baye Niass dafa teel a wane mandarga yi Tuuba waa juróom tuddee ko Ibrahima mu amoon ay dàkkantal yu bari ba ci njëkk mooy Cheikh al Islam muy sëriñu Islam daa ngi ko waxee mursidul anam ci jubbanti mbindeef kawsul ibaadi kuy xettali jaam yi fariidu dahrihi fil ilmi wa diini kenn la woon ci xam-xam ak diine li mu njëkk a wane ci mbir kéemtaan boobu tamit ci kër waa bi ko sunu borom dooleel tànn nit ñëpp ñu daw jëm ci moom. waaw di jógee ci ay réew yu wuute yàlla ay may yoo xam ne masees koo gis ci kenn ku dul moom. wallaahi ndeysaan. di mu nekkoon ci kër waajuram nit ñi bañ di ko wér sax ñu ngi kër yi sax lool pour yaatal loolu moo tax mu samp kër. defar Nizamiya fii ci Medina ci bésub altine yàlla ubbil ko fi ubbeeku bu mat sëkk bàyyi ci tasaare tarixa Cheikh ci àdduna nga xam ne mbooleem borom xam-xam yi nekkoon bitim réew ci réewu arab yi ci réewu Afrique ci réewu Europe fu mu ci dajeel nga joxoñ ko jiital ko. fu mu dem ñëpp maa ko ànd ak moom. yàlla na yàlla na yàlla sarma bi quoi. pour le ëpp. teewul yàlla ëpp la lay gën. cosaan nag ci ay waajuram. Alaaji Abdoulaye ak Soxna Aïssatou Diallo nekk Jolof. mbooleem nekk tam-tam yëpp ñu ngi woon ci bàyyi. sëriñ bi Cheikh al Islam Baye Niass fierté la ci adduna bi yëpp. rawatina ñun ñi bokk ak moom nekk ay Sénégal. Allahu akbar. dimension yi mu yóbbu gàmm. fu xool li nekk fii ci Medina Baye. xool li nekk ci kër yi nga xam ne yii waa kër Baye ñoo fa nekk ci adduna bi yëpp. tey boo dem. ci àdduna jabootu Baay ñàkk ci ñu màggal bés bi ci mbooloo moo xam ne foo ko takk paase la Cheikh al Islam Baay Ñas nit lot na ci xam yàlla mi ko bind ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak Cheikh Tidiane Chérif sëriñam ñoom ndaw ñoo ko xam Baay Ñas dugg la ci àdduna tuubal borom der yi weex yu bari dugal nga leen ci lislaam ni mu wasaaree tariixa tijaan nekk na kéemaan ci àdduna bi loolu moo tax ñu koy wooyee borom fayda tijaan yi bu ñuy seetlu bés bi bu agsi ba weesu ab diir nit ñaa ngi jógee fépp ci àdduna rawatina ci réewu Afrique sowu jant yi ngir màggal si bés bi fii ci Madina li mu doon tasaare islam ci Afrique rawatina rataxal na diggante Sénégal ak réew yu bari ah, ci wàllu diplomatie Serigne Cheikh bi fi bàyyi jógee ba léegi njabootam di ko fi wutu taxaw nañu taxawaay bu rafet ci ci réew bi ak ci sëriñ bi président Macky Sall ñu ngi ñëw di ñëw fii di ziar yóbbante nañu ne mi ngi féetale kóllëre ak te yeesal yéeneem ak bëgg-bëggam ci taxaw moom ak gouvernement ci lépp lu bi tedd bi di Medina ak njabootu gi fi ci biir loolu maa ngi ngeen dolli ko ñaanal yàlla ñi ngi jëm ci ay élection ngir tànnal ñu jiite réew mi juróomi at yii di ñëw coow li nag bari na waaye xam nañu ne bu ngeen ci ñaanee danañu ci ak jàmm génn ci ak jàmm ni ko réew mi daal defee lii daal sëñ bi moo doon kàddu yi ma bëggoon a yëkkati jëme ko ci yéen ci jotaay ci ndigalu président de la république asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh hani'an li ibrahima laaha hilaluhu hilalun bada linnazirin jamaluhu hilalu rabi'un fihi jaa muhammadun fatamma lana albushra wa amma nawaluhu